mooy sabab bi te wax na ko ci ay wax yu wuute yoo xam ne buñ ci buñ ci duggee mën naa yaatu lool waaye sababu xaybati bi an allaha araada an anaala minhu jaaha wa an akuna shafian li qawmi wa an akuna xaadiman fi dawmi tënk na sabab bi ko andi woon fii xam naa fekkee rek kii na ma jama delloo la ehm, ndax boo am na loo xam rek <laughs> waaye nag mën nañ ko mën nañoo tënk daal sabab moom xam nañu ko mooy loolu mu junj ci bayit bi rek mooy ne yàlla moo nam moon mu am ay daraja ak i maqaama yu kawe fa moom te daraja yooyee leeral na ci mbindam ci gisaaw shakurul atu fii jawaabi abdul bi nga xam ne moo ko bindal boppam ne ci mayom ba la ko làqe te te loolu yooye bokk na ca maqaamam abdullahi jaamu bu yàlla boo xam ne jaamu bu yàlla rek bu ñu ko waxee day niru lu yomb waaye jaamu bu yàlla dëgg-dëgg yombut ndax ci diggante ubudiya la diggante ibada la ak ubudiya ak al ubudatu te ñu baree baree baree bari ci ñi fi yéem a ka eh, ñee ka séentu ca kaw man ngaa xam ne sax daanaka bu ñu weesoo ibaada rek maqaama mu njëkk mi rek àggaguñu sax ci ubudiyya te sëñ bi moom ñetti étape yooyu yëpp benn bu ci nekk jéggi na ko te fii la ko jéggee ba ci Gabon ca Mayumba googee ba laq ba àgg ci maqaamam al ubudatul uzma bi nga xam ne moo ko def mu nekk Abdullahi da lay xamal ne Abdullahi du lu woyof sallallahu alayhi wa mi nga xam ne mooy sëriñam ba de yaakaaram ja ba ko suñu borom tànnloo ñaar yi diggante abdullahi ak mulkullahi maanaam doon jaamub yàlla ak yoro nguurug yàlla ci àddina dafa tànn doon abdullahi suñu borom ne ko ah loolu day moo gën ndax boo tànnoon mulkullahi day danaa la ko jox ba dara du ci des waaye bis bu ñu taxawee bis penc nit ak gindeeg malaayka ñëpp teew ma teew man yàlla ba bakk ba ne ana maanaam tey jii li manil mulkul yow ma ana kan mooy borom nguur tey lillaahil waahidil qahaar rek ngay dégg yàlla rek kon abdullahi jooju moo tax bu ko suñu borom di tagg sax ca abdullahi la koy tagge wa wa innahu lamma qaama abdullahi yaduuhu ak lu mel ne subhaanallazi asra bi abdihi ak alhamdulillahi lazi ansala ala abdihi nga xam ne kon loo maqaamam moomu nag sëriñ bi nee na ci ci maayum bëgg la ko la ko làqee naka noonu maqaamam xadimu rasulillahi maanaam asna xadim doon ki ki gën a kawe ci liggéeykat rasulullah sallallahu alayhi wasallam yi nga xam ne ba mu demagul ci géej ga te nekk ca Tuubaa ju njëkk ja ci xasida yi da ngay gis da koy woyantoo di ko di ñaan mu def ko mu mel ne ña daan liggéey yonent bi sallallahu alayhi ku mel ne anas ku mel ne xasaan ak ñu mel noonu waj'al maqaami maqaama almurtada anasin fi xidmatin wa ka xasaanin azil xarani ci diwaanu saadaat muridina nga xam ne raaya ak ak ak xataaba xataaba ci la ci la nekk waaye loolee bi bi mu ñëwee gabog nag ci la liggéey ci ci ci maay mbagoo la liggéey ba suñ borom takkal ko daraja ak maqaamam xadimu asna xadimi rasulillahi moo moo tax mu wax ci bayit wa ne mulkul alil baaqi al qadim jaalani asna xadim liman lahu fadlun yadum wa saanani fi xidami te loolu nguurug yàlla gi moo ko def nee na nguurug yàlla moom du jeex mooy nguurug yàlla mi nga xam ne moo kawe moo ma def may ki gën a kawe ci liggéey te rasulullah sallallahu alayhi wa sallam waaw ah, te loolu wax na ko ci ay bayit yu bari boo demee ci ci xasid ak baraan yi dafa dafa mel ne ku défier sax xuddaamu rasulillahi yi liggéeykat yonent bi ñu jiitoon ñu jiitu ak ñu mujj waaw man zanna annahu yakunu abada yurdihi kallazi bi xidmati bada nafaytu zannahu bi anniya alxadim bi ma wana an mislihi kullu xadim ku jàpp ne mën nga koo defal moom sallallahu alayhi wa sallam ci xidma lu mel ne li ma ko defal dàq naa sa njort koo mën a doon rek maanaam defiyee naa la waaw koo mën a doon ñëwal rek maanaam dëkk naa la sa sa njort loolu dàq naa ko ne maay xadim xadim nag daa bokkut ak xaadim ndax xaadim moom ni mu wutee ci maanaam tëggiin wi ci làkku arab bi noonu la wutee ci maanaam mi xaadim dafa tëggoo faa'il mooy koo xam ne mën naa doon tey xaadim bu ëllëgee du ko doon nga maanaam saxu ci da ko mën na ko doon tey bu ëllëgee mu génn ca xadim nag faa'il la mooy koo xam ne daf daf koy liggéeyal waxtu wu nekk sax ci dëkk ci Sëñ Tuubaa bu gisee ci xasida yi sax day ñaan yàlla doon xadim rasulullah sax ba àjjana ba ci biir na waaw kooku kon ak yeneen ak yeneen maqaama yi dara jógee daal xam naa ne bëgguma monopoliser kàddu gi waaye maa yomba solo si bala ko mën a xam nga delluwaat ci mbindum sëriñ bi ak lim ci waxal boppam te yooyu yaakaar naa bu ñu demee ci kanam ci jotaay yi ñëw ci kanam dana leer ak it la ca dolli ko mooy ràmm aw xeetam ba bu ëllëgee du ñu dem sawara fii la ko liggéeye ci dégg nga ci maayam ba ko liggéeyee waaw te loolu it da ko waxoon ci bayit woowu wane ne euh, ci ci irwaa sax sëñ bi Lamin nee na sëñ bi nee na li waral ma tukki sama tukki bu sori bi ci géej gi mooy yàlla moo moon ca ëzal bu yàgg ma doon koo xam ne may ràmm sama xeet moo tax mu dox sama diggante ak nasaraan bi ba nasaraan wu ma te su ma nasaraan woon am lu mu ci teg loolu moom du am moo tax mu mu tàbbal ci xoli tubaab yi ñu ragal ma waaye ragal gi ñu ma ragal itam yàlla jaarale ci ñoom itam ñu génne ma indi ma ci ci géej gi jàpp ne dañ may fitnaal fekk na niamatun fii tayyi niqma xéewal gu yàlla taxañ ci biir nattu ak i ak i coono mujj gi daa xam naa ndax suñu seex foofu mu daaneele sax dafa am solo ci kër yi xam nga kër yi eh, sëñ bee ko fàggul boppam kër sëñ tubaay sëñ bi da koo fàggu te ci géej gi la ko fàggoo te boo demee ci irwaaw nadim sëñ bi laa na loo xam ne sëñ bi la ko jëlee wax na ci mujjug tukki bi bi nga xam ne loolu sax sëñ laa itam nettali na ko ñu dégg sëñ sëñ bi sëñ bi laa na ko ne sëñ bi bi nga xamee ne mi ngi waaja jeexal tukki bi kon mën nañu wax ne lambar na ci la deeyaaleeg boroomam ne ko yow kat suñ boroom doomu aadama yi nga sàkk bind leen kenn ku ne sàkkal nga ko kër ci àjjana ak kër ci sawara boo ko defalee tawfiq mu am gëm jaamu yàlla ca nanga ko ko digale ba faatuwaale gëm googu yi bu demee ci bàmmeel dañ koy won kërug safaanam ba mu gis ko ñu ne ko tëjal nañ la ko wan ko kërug àjjanaam ubbil ko bunti xéewal muy xéewlu ba keroog muy dekki safaan ba itam noona bu dee koo xam ne nag yàlla da da koo xañ tawféex jooju mu ne ci kéefër wala ci loo xam ne daal bokkul yàlla gërëm ba muy dem yóbbaaliwul tawxiid bu demee ci bàmmeel dañ koy woon këru àjjana ga ba mu gis ko ñu ne ko nag fee moo doon sa kër boo jaamu woon yàlla waaye ginnaaw jaamu woon yàlla tëj nañ ko keneen lañ koy jox dal di koy wala yaas billah tàmbali safaan ba tàmbali di ko fekk foofa ñu ci yàlla musal sëñ bi ne suñ boroom tubaab yi nga xam ne ñoo ma génne tooñ ma te li li tax ñu génn ma defuma leen ko seenu bañeel ak seenu noone ak seenu bew rek a tax ñu def ko ñoom tubaab yooyu ak mboolem banu israayil yi nga xam ne ñoo mel ne ñoom ci bañ diine ak bañ lislaam kenn ku ne ci ñoom sàkkal nga ko kër ci àjjana ak kër ci sawara ginnaaw nag dañ ma tooñ ma mënoon a fayu fayu ma jéggal leen te yàlla tax te sëñ bi daan wax ne bi ma mosee du ma tooñ te ku ma tooñ ma jéggal la damaa noppalu ndax yàlla damay fay ba noppi fayul ma <laughs> xam loolu moo neex waaw <laughs> boo gisee lii am nii ci fayug yàlla gi la bokk ak fayul gi waaw lii am nii am fii ci Gabon am Italie am Amérique maanaam ndam yi sëñ bi yooyu mu am ci fay googu la ak ci ci fayul googu loolu nag kër yi da ciy dugg ci kër yi laay ñëw nee na mu ne suñ borom nag kër yooyee nag ñoom ñu waroon a am te da caa teg sax ne buñ jaamu woon yàlla sax waaye waaye jaar nañu man fii ñu jaarak man buñ tuuwoon sax jaamu yàlla tuyaaba ji ñu am ci jaamu yàlla ga maa koy moom loolu lu yéeme la ma ujuruhum law abidu law abadu lii wussilat maanaam seen seen pay ga ñoom buñ jaamoon yàlla man la ko yàlla jox waaw ra bi jaamuwut yàlla mu ne ko nag kër yooyee nag laa bëgg nga rafaatale ma ko suñu borom na ko rafaatale naa la ko yaa ko moom loolu kër kenn xamul lu mu ndax lii xeetu banu israila kenn xamul lu mu nee na mu ne ko waaw kay loolu laa bëgg a xam mu ne ko nag léegi nag damaa bëgg jël kër yooyu jébbal la ko joxaat la ko nga jox ko rasulullah sallallahu alayhi wasallam mu joxal ma ko ahlu yi nga xam ne ñoo ma gunge ci tukki bi ak ak ak saxaaba yi tedd yi muy ñoom ñooñu kenn ku ne am ca am ca wàll ne suñu borom na ko waaw hadiye ju mel nii de kenn mësu koo joxe ku dul yow maanaam kër yi àjjana ñu jox la ko nga jël ko attan ko joxe hadiye toog kooku xam nga wul na boppam te it am na lu ko doy nee na mu ne ko addiya ju mel nii rek kenn mësu koo joxe ba tax na fay gi ñu la ciy fay it fay gu tolloog addiya ji lay doon ndax maanaam al jazaau min jinsil amal wa hal jazaau al ihsaan illa al ihsaan euh, fay gu ne day xeetu jëf ji mu ne ko mu ne ko nag waaye man yàlla day def day def ne lépp lu bàyyi koo ci man dootul delsi ci man te ñii ngay wax nii ñi ngi ko jox addiya kenn ku ne jox naa la loo xam ne ci teraanga fa nga ne daanaka doy na la sëkk mu ne ko waaw loolu dëgg la waaye waaye waaye teewul nag nangul lañ la addiya pay gu toll ne addiya ji itam jox nañ la ko sëñ bi nag ne ko kon damaa bëgg nga téyal ma ko téyal ma téyal ma ma kër yi ak yëpp ba bu ëllëgee bu fa àggee bu ñu demee bis penc fa dimbale ku ne mu xam ne des koo dimbale waaye déggal lam ci teg ci maanaam jom ja ak dégg nga jomb ga ak ak ak ngor ga ko ku dul moom mu ne ko man naa ëllëg ku ku ma yaakaar ne ci li ma bëgg muy dëkk kër goo xam ne keneen a taxoon ñu sàkk ko ku dul moom da ngay xool sëñ bi giy jomb rek waaw rus naa ëllëg ku yaakaar te ne ci li ma bëgg muy dëkk kër muy muy dëkk kër goo xam ne keneen a taxoon ñu sàkk ko dul moom kon kooku xam na li li li am ak nu mu toll ak nu mu day waaw junj la waaw ko koo xam ne nag yaakaar na ko te ne la mu bëgg kon ak soññ la daal di wax ne téyel ma ko nag ba bu ëllëgee kuñ fa dimbale ma xam des koo dimbale kër yooye nag sëñ bi dafa da man ki sama jàngat bu gàtt bu ñàkk solo damaa gis ne suñ boroom dafa tàmbali fay ko ko ci zahir te demaguñ ëllëg bis penc ndax jëmmi pay ga moom maanaam tu tu tu tuyaa ba ci maanaam addiye ja bu su daan nett li wax ne sëñ bee ko wax ne ko tuyaa ba jooja dama wax sama suñ boroom ne ko na na na ko bàyyi ci kaw maanaam jaww yi àddina li ko dale foofu mu ko joxe ba keroog ñuy wal buftu bi fu ñaar ak ñett toogee di waxtaane baaxu sëriñ bi ak ak ak may yi ko yàlla defal ñuy sotti ci seen kaw xéwal googu ba keroog ñuy jóg <laughs> xam nga kon loolu itam maanaam benn bénéfice la ci ah bu baax incha allahu taala waa waaye la ma ci jàngate mooy kër yi mu am ci àdduna bi day mel ne day tegtale dañuy tegtal ci ci saa ci ci ci zaahir maanaam këri àjjana yooyee ndax bu mu ko waxee bàgg daf ne lii jaada rabbi bil manazili la daa taxarrub yi yàlla yàlla jox na ma kër ya bi ma nekkee ci tumuraanke ga mooy ci géej gi loolu boo demee ci ko mu ngi ci euh, moo tax kon këri Mayumba yooyu këri Lambarana këri Libreville ak kër yi ne fépp ci ci ci ci àdduna bi day day day doon misaal mu ñuy wan ne Sëñ Tuubaa yàlla jox na ko këri àjjana ya ndax am na ci xasida yi yi mu taalife daal Salaam bi mu koy sanc am na fu muy ñaanaan yàlla maa ngi ñaan nga def sama kër yi bu ëllëgee mu soppali ko doon ay këri àjjana nga xam ne kon kër Sëñ Tuubaa yi ne ci àdduna yëpp ay këri àjjana la ëllëg ndax moom lu mu ñaan rek yàlla may na ko ba noppi musa ko ñaan kon kon kër yooyu kon sëñ Cheikh li ñu ci wax lu mat a bàyyi xel la mooy ne lu am la ba noppi li li des nag mooy maanaam téye gi nag téye gi loolu moom maanaam ñun ñoo ko war a def nag waaw ñoo ko war a taxawee ndax li nga wax nii man am na ko loo xam ne fekke naa ko maire lambar na ba ci ci atum 2000 moom ba ñu fa demee ba mu defee discours ba ci maire bi baagal dafa ne nañ jëm ci colline de la paix bi ma jox leen fa benn ectare ngeen def ko kër sëñ Tuubaa noonu ko meeru dégg nga maayam booba defee keroog ci ci ci ci ci ci at moomu kon yooyu yëpp loole kon taxawaay la laaj ak yitte jàppal na euh, mm. mm. mm, waaw xam naa li may njëkk bàyyilu xel rek mooy taarix moom boo fekkewut gisoo xëy na mbind wuute mën na ci am doo dogu ne lii la waaye ki fekke moom dund bu nettalee te doon ko maandu des na ko gëm ki fekkewut itam te gis mbind rawatina mbind moo xam ne ka ko dund moom moo ko bind ah loola itam day daal doon tegtal jàpp naa ne waaye rek du tee itam ñi ñi wax leneen it ñoo ngi dañuy respecté la ñu wax eh, ndax eh, ñoo xam fañ ko teg waaye daal bu ñu sukkandikoo ci ñun suñu suñu suñu suñu njàngat ci mbindum sëñ bi liñ jàngate mbindum sëñ bi eh, liñ jàpp mooy bi mu jógee Libreville gi bi mu fi fi ñëwee def fi ay weer bi mu fiy jógee maayomba lañ ko yóbbu loolu lañ gis ndax loolu mën nañ ci indi ñaari tegtal yu gàtt rek ci mbindi sëñ bi wala sax ñett yoo xam ne yëpp ci ci mën nañu tudd téere baak yëpp benn bi mooy maanaam ay yesa mbindi laa indi jeewali sëñ bi booy xool contrairement ak tubaab bi seenu njàngin ci tukki bi maanaam dem bi ak dikk bi dafa wute sëñ bi moom maanaam bi muy ñëw la gën a jox yitte bi muy ñibbisi booy xool <laughs> bi muy muy dem waaw bi muy tukki la jox yitte lool nga xam ne bàyyiwul benn détail tàmbali ca mbakki Baari ja jeewal ja Ndar ja Ndakaaru ja Konaakiri ja maanaam Garam Basam ja Daawme Libreville noonu mu teg tegtale état bi da koo tànn ndax lenn lu nekk xam na fan la ne dëkk ba nu mu tudd fan la ne ba mu fay jaar la fa xew mu tudd ko te ay yesa gis nga état bi fu mu tàmbalee jeewal Ndar Ndakaaru Konaakiri dégg nga Garambassa ci Côte d'Ivoire muy Bénin Libreville muy Gabon ak si Gabon bi bi waxee Libreville wax la fa xew lu ci teg saaqa li xeyrillahu fii Mayumba daal di tudd Mayumba soog a wax lillaahi qad wasaltu inda galwaa muy Lambarana kon daal daal di jeexal nga xam ne foofu moom tuddaatul beneen dëkk wala beneen xeet ah galwaa la gamu galwaa lay wax waaw daanaka doo ah man gisaguma fenn fu mu tuddee lambar na ji moom waaw galwaari xeet wa xeet wa lay wax léegi kon boo loolu kon tegtal la beneen tegtal bi hmm, beneen tegtal bi mooy euh, ci ay waraqaat ay kayit ay mbind yoo xam ne sëñ bi ci sëñ bi la jógee loo xam ne li ma waxoon ne tukki bi da koo ñor dem gi da ñor tubaab bi moom boo booy xool sax daanaka dellu si la gën a jox importance loolu dinaa ci joxe ay teg ay firnde mooy boo xoolee fi ne bi muy ñëw moom sëñ bi noonu mu bind état bi noonu ci anam yi wute nag bind na ko ci way bind ko ci westar bind ko ci sajaan la bind na ko ci bi mu ñëwee ba nekk fii tam am na mbind yoo xam ne da ciy détaillé ni mu fi nekkee woon ni mu nekkee woon loo xam ne bokk la gisaaw sakkoor bi nga xam dafa tënk rek léegi nag ci ca mbind yooye nag nga xam ne westar la bi mu ko westaree ba mu jeex dafa indi noon yi tàmbulee ca mute ma nga xam ne moo ko génne woon Sénégal Leclerc ak Merlin ñoom ak ba ci noonu maan nit ñu ñuul ñi ay ñoom Doudou Mbaye ak ma Abdoulaye ñoom ñëpp tuddul seen tur de waaye kenn ku ne dana la junj junj woo xam ne danga xam ne kii lay wax bi muy mu leen tudd nag ba agsi ci ki nga xam ne moo nekkoon Libreville te jëlee ko fi yóbbu ko Mayumba bayit ba mu wax dafa leer ci ne bi muy jógee Libreville Mayumba la dem ndax dafa ne taba bu man bachara fii libar naqli li bafalin la daa taxawuli qaidatun ila balaain azala li wajhi baaqin li yaqaada munzala la moom bind lu leer la ak ku dégg arab da nga xam ne moom lu leer nañ da waaw taba maanaam boobu day wax noo ñoom noonu yooyu fi leen yàlla mujjale ci ci alkande mu ne alkandek ki nga xam ne moo jonjoo signature bind ne nañ ma jëlee Libreville tudd Libreville yóbbu ma baafali te baafali moom du fenn fu dul maayomba <laughs> bu njëkk sax dañu jàpp ne ab dëkk la woon waaye léegi leer na ne moom aw xeet la kon ki ma jëlee Libreville yóbbu ma baafali waxtu yu may wëlbatiku di di di di di wëndeelu da daa taxawul yi alkadem jooju moo koy wommat ba yóbbu ko ci balaa boo xam ne moo ko ber kon xam nga muy ñaar bi ko ñetteel nag moo gisaa sakur laatuf foofu moom dafay wax lu leer dafa ne ginnaaw bi nga xamee ne ñëw naa Libreville Gabon sax la wax foofu tuuti sax Libreville moom dañu ñëw naa Gabon gu siiw ga wax ca yam ca wax wa makastu fiha muddatan gayra tawila ma am fa diir boo xam ne yàggut walam ara fiha man yatlubu llaha wala man yatlubu sabila gisuma fa kuy sàkku yàlla wala kuy sàkku yoon jëm ci yàlla daal di wax a wax wax ne ma génne foofa nag dem ci beneen dun boo xam ne dun booba def naa fa juróomi at xam nga ba tey mën naa ba leer